de ces fonctions Bon, Benen, bi moi Khalifa Ababakar, parce que nous avons ministre bi di wax ni politiciens et mais politiciens a jaay ont ñu dem fi nga des ne qui ont ñu yóbbu ñu fa ñu condamné ñu ont des du Sénégal benen ñu exécuté Khalifa article ont le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. nit qui suñu ko falé rek. suñu ko jouent député. il jouit d'une immunité du c'est vrai. cour de justice de la CEDEAO nañu Khalifa Babacar Sall il jouit d'une immunité. Mais ils ne topp pas da porter atteinte au droit à un procès équitable. Le nga droit à un procès équitable ko atteinte c'est un droit fondamental de procédure. le procès amatu fa. lépp très bien à l'époque sax dama été fait. suñu nguur gi dafa war a bàyyi Khalifa Ababacar Sall su leen neexee sax le lendemain mun nañ koo convoqué waat nguur ga bañ waaw bu Karim Wade dañ koo njëkk a interdire génn fii Sénégal mu dem njëfa ñu njëkk a yóbbu cour de la CEDEAO ñu condamné ñu ñoom ñu ne dañuy régulariser l'interdiction parce que cour bi daf ne leen woon amul base juridique loolu dalay wan ñun récemment cour de justice de la cda euh, euh, le groupe de travail des Nations Unies Karim le groupe de travail il est en détention arbitraire arbitraire ne procès à mhm. c'est vrai Bataille réviser wuñ ko politiciens parce que Ousmane Sonko mhm. recours la défi traité Ousmane Sonko nous avons ko ci kanamu yoon faire. muy def n'est-ce pas délai pour formuler l'appel nous avons enrôler le dossier condamné ko. ci dossier bu ko opposé avec ak Mame très bien beneen bi si top, Ousmane Sonko ak ñi andal mais combien de fois nous avons attaqué Pastef siège Pastef taaluñu ko. fan la mujj. saccagé vandalisé. Mariama Sagna reyuñu ko Oui. où en est le dossier. Mhm. le 27 mai 2023 le procureur de la République de Kolda aujourd'hui à 16 h mhm. au niveau à Kolda Ousmane Sonko faisait sa caravane dénommée caravane de la liberté mhm. des individus qui étaient dans des pick-up non immatriculés ils ont saboté di caravane le décès de Aliou âgé de 37 ans yàlla na enquête bi yem ma jox la beneen. c'est vrai que c'est le procureur moom ci boppam moo. moo bind communiqué man kay li ma man kay ay fait laay wax. beneen beneen bis topp. Mhm. élection euh, yi amoon. Euh, élection législative ak locale yi Matam. Mhm. Jibril Ngom. Mhm. bu mu dawee ak euh, les. voilà les fiches de Yewwi Askan Wi. ñu porter plainte foofu fan la dossier bi mujj. recevoir wuñ ko bale Jibril Ngom après ana tay dossier bi Pape loolu yëpp am fi nit ñi di wax genn ne nit ñi parce que ñi mu concerné ay politique lañ mais ñi mala wax ñep ay opposant lañ té liñ leen teg lépp dafa salfañi sen ak ak yelleef ci état bu ñuy wax Sénégal ko xam dañ ko naw à l'étranger liñ ko naawee mo dafa amon lu muy bàkke bopam moy état de droit ak démocratie su Afrique du Sud taxawé conseil de sécurité ni dama bëgg siège Don membre permanent Sénégal ne dama bëgg ñu né yow ah, yow Sénégal yow yow économie bi Afrique du Sud am y a yow taille population bu mu am amoko mm-hmm. Sénégal ni waye man man am démocratie man Afrique mm-hmm. Afrique man ma am état de droit ah, mais lolu tay xar kanam googu soo demee ba tay Sénégal notre pays est devenu un sujet de moquerie mm-hmm. mais ça pose problème parce que tout simplement dama état de droit Moins un état soumis au droit. oui mais li ma wax et c'est des décisions de justice yo xam été yi jël engagements internationaux. Mm-hmm. en vertu de l'article 98 de la constitution Si nous suñu jëlé engagement yoy suñ ko dougalé suñu ordonnancement c'est au-dessus des lois et jusqu'à présent so xolé li ma la wax lepp amna fi état du Sénégal nguur ga bañ ñu tegg len lolu nit ñi ñëw taxaw naan waaw parce que amna ño xamanteni donc ñi ngi ci prison way lolu lolu dañ ci yow teg teg ci ay loxo muy ay fait c'est factuel dama né la Ousmane Sonko amna ñu wax ne dañu ko juger même par contumace mm-hmm. mani ni mais est-ce que xam ngeen ni Ousmane Sonko avant le procès lañ ko japp barricadé ko mais un justiciable bu wara a dem mais waron nañ ko bàyyi bañ ko barricader 56 jours sans. non am ñu ma wax bi ma ñu ne man non waaw mom mo ne du dem extra man leen en mars 2021 waxuko ko mhm. pourtant dafa mujj la. oui mais tout justiciable a le droit de faire un commentaire sur sa situation judiciaire. absolument donc so xolé ci situation bobu lañu nek motax man damay japp né nañu revenir aux fondamentaux. Mhm. aux fondamentaux mooy. nga état de droit bi nga xamante dañ ko def dès le préambule muy wacc nga xamante constitution bu Sénégal ci préambule bi ak ci article 50, dafa Sénégal finit, ni mu l'état état de droit la démocratie séparation équilibre des pouvoirs mu entre une opposition maintenant qui s'oppose à la politique du gouvernement donc ku fi nek opposant da nga am statut da ngay dégg ñenn ñi nan la non opposition amul statut parce que amul loi man len bu amul gouvernement bi amul loi euh, amul aussi parce qu'il y' a la loi organique relative au statut du gouvernement depuis 2001 y a une constitution qui musu ko jël. Mm-hmm. pourtant gouvernement donc moi, n'est aussi elle pas constitutive d'une loi parce que dafa beaucoup ci li démocratie. Mm-hmm. donc so xolé tay situation bi problème bi lolu <laughs> ba tey euh, ci wàllum droit yi nga wax ak euh, institution yi wala yenn mbir yi nga xamante dañ koy gis euh, ñu mi xew ci biir réew mën nañ jël aussi exemple cour suprême ci wàllum Khalifa Sall bañ koy naan condamnation bi dafa définitive que rabat dare nekkul loo xamante ne lu suspensif la ñu dem trois ans après ñu indi benn modification boo xamante ni dafay ñëwaat di xamal sénégalais yi que ni rabat dare dafa nekk loo xamante ni lu suspensif est-ce que yow mi nga xamante ni praticien mën nañ ni praticien de droit nga loolu boo koy dégg di ko gis di nga am fi et quand même ni réew bi état de droit là. waaw xam nga dalay metti un peu parce que ñun dañu taxawon à l'époque man bokon n'a ci ñi le rabat d'arrêt est suspensif et puis fouleur leer lañ ko tegoon. lolu mo lay wone Khalifa Ababacar Sall dañ ko togn dañ ko absolument. dañ ko parce que mom pour te dire même Khalifa Ababacar Sall bi mu déposer sa candidature. Hum. conseil constitutionnel clôturé won na ba il a fallu que donc parquet bi ñeu djébal ko la décision devenue définitive benen bi toi top si bu ñu un rabat d'arrêt c'est suspensif ou ce n'est pas suspensif mhm. conseil constitutionnel d'arrêt ce n'est pas suspensif mais législateur bi mom mo ñëw loi désormais le rabat d'arrêt est suspensif n'est pas suspensif non n'est pas suspensif pardon mhm. n'est plus suspensif mhm. pardon. parce que en réalité donc cela signifie que le rabat d'arrêt était suspensif et donc da fay wane ni en fait ñun dañuy reculer suñu loi xam nga le président Senghor dans un discours de fin d'année su koy def Limi a euh, wax combien de fois l'administration administration bi dans l'illégalité ñu sanctionné dans l'affaire Aminata Sall et autres le président Senghor dafa dàqoon ay étudiants mm-hmm. dañ koy jàngalé sax étudiants yi li leen xam nga ni étudiant bon conseil de discipline de l'université mais du président moko parce que université dafa autonome ñooñu attaqué ko étudiants yi attaqué ko devant la cour suprême xam nga kan moy wax ni Kéba mbay dans propos d'un juge bi mbir mi ñëwé la cour suprême annulé ko biñ ko annulé néna am sax ñu le président Senghor il faut prendre des mesures contre la cour suprême le président Senghor né j'ai fait mon devoir la cour a fait son travail le Sénégal non la mos le président Senghor chaque fois chaque fin d'année, nous avons combien de fois la condamné l'administration pour maintenant wax citoyens et ak wax ak apporter des correctifs parce que l'ICAT, donc voilà bu et on va améliorer le fonctionnement de l' mais mais yow gis nga fi ni tey ni cour de justice de la CDAO rendre des résultats koy xarab. nguur gi ne donc voilà et cetera d'accord et cetera ñun ñoo signé convention. cour de compte par exemple def euh, sen ñu des politiciens. effectivement ñu jiñ len ñu couleur effectivement ñu wax couleur donc mu am yo des dans dans dans dans notre pays fay lo ay la Et yo xam nga droit sensible té perception la la justice justice perception la Pape cette perception là donc dafa wara donc donne une perception bo à maintenir xam nga satisfaction générale mënul am ci ñëpp mm-hmm. mais dafa une perception confiante manam mm-hmm. yow suma ma la togné nga ni ma ah man duma ma ak yow mais xam naa ni suma démé demee fan doo xam doon benn ma am dëgg mm-hmm. te xam ni man aussi ba ma fa yobé bu ma daanee ma xam ni Pape mi fi mo ma mako ko ñu daan ma té liñ ma daané que def donc sama je moy ma waré je ma que suma ma amandé ma amandé suma ma teud ma teud suma ma fay je ma fay maintenant lolu yépp so dans un état de droit alors que ñuy gis yenn erreurs yi wala ñuy gis yenn yi def devant la justice et surtout le caractère sélectif parce que tay Sénégal deux pas de mesures bi motax ba nga xamni ils se posent des questions di wax lu xew da ngay opposant